communautaire ñooñu mooy ñi jot ci mbas ñi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wàll ci leen ko wàll ñu nag seen lim nii la tëddee ci ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fanweer ak ñett yu tëddee nii ci gox yi ñett ci Parcelles Assainies ak Rufisque ñaar ci Mariste Grand Dakar ak Guédiawaye benn ci Dakar Plateau Médina Amitié 3 Ñaari Tali Liberté 6 Ouakam Mermoz Ouest Foire Nord Foire Sicap Foire Yoff HLM HLM Grand Yoff Cité Soprim Sébikotane Diamniadio Cité Fadia Kër Massar Jaxaay Thiaroye Azur Sangalkam ak Arafat ci région yi am nañ ci ñaar fukk ak ñeent yu tëddee ni juróom ci Thiès ñeent ci Kolda ñett ci Richard Toll ñaar ci saint ak Touba benn ci Louga Pout Mbour Passy Tambacounda Tivaouane Vélingara ak Ziguinchor ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróomi malaat si ñi entrée woon ak ñi ñu toppoon ci biir kër yi wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu si yàlla ànde fanweer ak ñetti malaat ñoo nekk réanimation ñetti malaat ñoo ñàkk seen bakkan ba su démb dibéer ñaar fukki fan ak benn ci weeru mars mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba senegal wàññi fanweeri junni ak juróom-ñaar ak juróom-ñeent téeméer ak ñaar fukk ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñeent ak juróom ak téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar wér nañ ci junni ak fukk ak. ak AM info kumpa jeex na ci même réew bu leen nangoo ci kenn ku leen di partager ay information te jógewul ci AM info boo leen ci bëggee bokk da di woote ci numéro bii 77 855.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 te bàyyi xel ci rendez-vous bi ñu leen jagleel pour jot ci ña tollanti vaccination bi ni niñ ko diglee ministère la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam